waajal lu mel ne ay beñe indi woon ko ci jumaa ji ngir euh, bokk ci taxaw màggal euh, gàmmu gi te it ñëwaale nag ci wàllu liggéey bi comme nañ ko daan defee euh, liggéey bi nga xam ne moom la def ci jumaa ji nga xam ne daayira mu xadim xidma saa yu nu yegsee rek fi ñu ci war a taxaw lu ñu ci war a def ñoom daan ñu ko wax ba tax na ko ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax ci liggéey bii nga xam ne ñoom ñoo ko ànd ndax day bànqaas bu nekk Louga ak yeneen dëkk yi ko wër te saa su ne seen i kaddu ñu ñuy yaatal gën a yaatal liggéey bi waaye gën a joxe kóolute gi ñu ci sant bu baax a baax a baax moo waral tey ci bisu gàmm gi ñu waajal xéwal yi indi ko euh, doon ko jébbale euh, mu suñu nga xam ne bi ñu tàmbalee gàmm gi ba léegi ñuy ñëw fii ci jumaa ji nii rek lañ koy lañ koy defee tey ñaan nag mu gën a yokk ndax euh, jumaa ji umpul ne ci guddi gàmm moom day fees dell mbooloo mi fépp lañuy ñuy jógee ñëw fi te it euh, ginnaaw gée ba fajar daanaka rek ni benn jotaal li ñuy toog ci organisation boobu nag euh, ni ñu tàqalee góor ñeeg jigéen ñi waaye tamit kenn ku ne fa nga toog fa lay fekk sa benn rek sa lépp loolu la daayira bi di taxawee moo waral ñu nit ñu ne liggéey boobu faw fu ñu mën a nekk rek ñu ñëw euh, ànd ci comme ni ñu koy santee ci taxawaay bi ñu def ci ci mboolo yi ànd ak ñoom ñu ci sant bu baax kon suñu Matar kàddu gi noonu. si Xaadim ñu ngi nuyu waa daayira bépp da jiital yow mii sa njëwriñ di sant bu baax ci sa taxawaay ci liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xam nii bi nga ko àndee ba léegi nii day gën a sell di gën a baax kon jërëjëf defte nga da def te loolu mooy li ñu boole woon mooy lépp loo xam ne nii ñu ngi ko yëngu moo xam muy koor moo xam muy màggal moo xam muy gàmmo saw ñaq ñaqu daayira yëpp yi nga ànd bon yëpp tàbbi ci biir te loolu moom ñëpp koy seede tey na dakee raw ndax tey guddi gii njëm nii guddi la goo xam ne nii sunu yaakaar sew xel daa wax ne lu ci waay joxe donte ab dërëm la donte aw ñam la donte ndox la diggéey dafa rëy mel na ko fekk Badar Hunayn te yooyu xeex moom mooy moo dëgëral islaam moo taxawal islaam kon yàlla mi tax ngi def yàlla na nangu jëf ji te fulal la ko te may la xol bu ubbeeku ak euh, làmmiñ yu fecceeku ba ñi nga séqal liggéey bépp ñu dégg ni nga déggee ba liggéey gën a yomb gën a jaar yoon gën a jàppandi di wax rek ni la lépp loo xam ne ni jiwane ci yéen ñëw ci ñun ñoo koy àndaat def ko fi jëmaat te génnal biir jumaa ji kon ñu ngi sant baax dina la gërëm baax ci taxawaay bi dinañ amee yàlla mu defal tawféex ak najaax ba ñu nga ànd yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.